man choix bi lu ma ci gis quand Ousmane était à dans l'opposition il disait que lu yendu pale ma xam lu fanaan pale ma xam lu makki reeree ma xam li ci biir administration bi xam nañ ko mhm. et on savait pertinemment que notre administration était souillée tout le monde savait que administration bi était souillée administration bi dafa lënd bëri woon ay lëndëm je pense que ce sont ces gens là aujourd'hui qu'on a récompensé c'est tout ces gens là mooy bon non mais Ndeye Sow <laughs> on peut pas <laughs> vous pouvez pas xam nga xam nga man daal parce bi xëy na à un ou deux exceptions près le reste y rien à dire. dama ne la on la proposition dama ne la dama ne bañ a saluer dama ne la Ousmane Sonko dafa ne bi mu nekkee moom ci opposition bi. lu fanaan kër Macky Sall mu xam lu Macky Sall def biir palais mu xam lu mu reeree mu xam day brandi ay dossier ne dossier bii nangam ak nangam fii ak fii ak fii la ñooñu nag yi nga xam ne man amaana gis naa ci ñoo xam ne ci biir gouvernement bi ils étaient ils ont été récompensés parce qu'ils étaient dans le gouvernement soxlawul ñuy tudd tur mais ils étaient dans le gouvernement ñoom au fond de ñoom xam nañ ba xam jàng bi ñu jàng euh, yàq na wala yàquwul li leen seen yaay yi doon fayal ak seen papa yi yàqu na wala yàquwul parce que nga topp sa moroomu góor dana la wóor ne kooku du la wóolu. dina liggéey ak yow mais du la wóolu.